ñuy joytu tay di tax ñu wolen leen ñu ci joytu ñun à Kantene amuñu autorité Ben, madame la maire xamuñu sax tax moy suñu maire. ben ciir amuñu ko ci likoy koy ci biir campagne élection bi ñewna buñu xalil ñu suñu yoon bu joggé Kantene bi Kantene Kajamoor yoon bi bu tawé auto du fa jaar. auto Sénélec wax mbir Nous Sénélec ñu ne nous sommes traiteur lañ ko jox les agent mi def Nous sommes def contexte Nous lancement Nous nañu lu amul poste de santé amul école amul dara amul marché félicitations qui nous zone di fa imaginez un pauvre bu am 1000 francs dépense nga war a dem marché transport bi rek da lay coûter 1000 francs boo demee nga jënd la. loo jëndee dañu sonn te loolu bu fekkee réglé wuñu ko dinañu dem à une vitesse supérieure te bu boobaa les responsables le gouverneur le ñuy dégg préfet ñuy dégg Ousmane Sonko bu nekk maire en tant que ministre mu dinañu dégg. ñi ngi au gouvernement bu bees bi mu taxaw ci parce que ñoom dañu woote benn rupture du changement bay ootee rupture day fekk ñu koy gis ci dëkk bi ñun nag sonn nañu ci poussière bi sonn nañ di transporter suñu doom yi dem ci beneen commune di dem jàngi sonn nañu amuñu courant amuñu ndox donc on a marre. gis ngeen fii li ngeen di gis nii. Kantene fii à part tali ak 5 mètres am na courant zone bi ñu nekk ci digg bi amul courant après ñun 2 boo xamante ne Soforal moo ko moom xamuñu lu ñu traité ak ñoom parce que ñoom xaalis la ñuy wër ñooñu am nañu courant Mandina am na courant si lañ ñëw ñu tegal ñu poteau yi yëpp ñu xëcc fil yi yëpp ñu ne problème transport la ñu am te problème transport bu ñun dégg nañ ci version bu ne. dégg nañ ci le directeur euh, réseau bu Sénélec ak ki géré ki géré entreprise bi ñu jox bu gagné marché bi fay nañu agent yi fay ñu agent yi transport bi mi ngi ñëw tey lay ñëw suba lay ñëw gannaaw suba lañ koy taal ñoom seen problème yooyu du ñun ñooy fay les sec les séquelles bu fekkee dañu am seen problème ñun ñu taalal courant bi ñu dem gérer seen problème